mbokk yi asalaamaaleykum jàpp naa ne jarul ma leen di présenté fan laa nekk fii ci sowu jumaa mooy barab bi nga xam ne jenn dëkk ci àddina bi jumaa ja la njëkk a tabax muy néegu yàlla laataa ñuy xalaat seen i kër te mbokk yi jamono jañ koy def seng lu jafe woon la sàkket lu jafe woon la ñi ko doon def taluñu seen i kër waaye ndigalul sëriñ bi tax na ñu xëy ci jumaa ji muy li njëkk a sotti di li fi njëkk a doon tabax ci dëkk bu sell bi di Touba kon xam ngeen ne barab boobu jaratul ñuy wax ab dayoom waaw nan ngeen mën a imaginer barab bii nga xam ne ñun sol mbaxana di ko romb sax xalaatuñu waxuñu laa di dugg ca biir ñu ñëw ba ci bunt barab bi gas fa kàmb yu toll nii donte liggéey bu am solo lañ doon def dugal seeni tuyau dem bay ko fi loo ëpp ñetti weer bi gi nekk fii ci buntu jumaa te ku gis affluence bi nga xam ne moo am ci circulation bi fii rawatina ajjuma nga xam ne jumaa ji day fees ba ci mbedd mi rawatina mu nekk ci diggante jumaa ji ak kër sëriñ Tuubaa gi nga xam sëriñ bi bu doon wàcc wàcc waayam a ngi nii sëriñ baa ngi fii di dégg li ñuy wax di gis li ñuy def waaw ndax jàpp ngeen ne jaadu na mbokk seetal leen seen mbokk ba xam ndax jaadu na ba xam ndax yell na ci dëkk bu sell bi rawatina ci barab bu am maanaa bi nga xam ne ni amuñu lu dul moom muy jumaay Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul bari nañ ci dëkk bi liggéey bi metti na foo taxaw ñu ne la du fii amuñu fu ñu taxaw pax yi gis nga suñ ponkalam gaara pax mi ci gaaras bi ak ni mu jegee kër ak ni mu jegee kër Serigne Touba gi fépp la nag fii ba Daaru Xudóos lépp dañ koo ngeer ngaareew dem seen yoon dafa yàgg dafa yàgg fi ne bu yàlla ji tawee nag autoroute dem bi autoroute dikk moom. mais tali bi ni ko defaree nii ndax am na couche yu mu war a am yëpp. amul jafanduwul fenn ma nga ne seen ko dañ ko rek dem amul fenn fu mu jafandu léegi bu sa camion sartee bu jaaree day surux ci biir bee defar xam nga ne ku ko xool boo doon ouvrier sax xam nga ne bii defar tegul ci yoon. am gi de liñ ci gis mooy métti leen lool di ko métti lu chauffeur sëpp di ko métti lu ndax zéro mètre digganteem ak jumaa ji oto yi kilifa bu ne dafiy jaar nit ku baax ku ne dafiy jaar gan yi jaar ci dëkk bi di jàll dañ fiy jaar. rafetlu wuñ ko nag commune bu mel ni commune Touba ay kamb nekk ci li wër jumaa ji mm. ndedd moo jaar fa gis pax rafetlu wuñ ko nga naan kamb yi mais bul ne kamb gi xañ na gii rek lañ gis mm-hmm. mais dëkk bi maanaam li mboolem lu fi ONAS dagg rek dara baaxatu fi bu fi nawet ñëwee bu nawet ñëwee daanaka lépp àdduna kenn dootu génn léegi lu ñuy xaar pour ñëw defar ko dañoo amul njiit xanaa parce que dëkk bi dafa am fu mu tege te maanaam loxo yi ñu ko teg xañ na ñemewuñ cee wax jege na jumaa ji maanaam fii deux daanaka lee mu jege deux mois gis nga bi ñu ko jëlee liggéey ko dañoo jël karo yi rek teg ci kaw au ñu man koo def nañ ko defoon te liggéey bi Alaaji Baara moo ko liggéeyoon defar fi liggéey bu baax ah kilifa gu ñëw ci ngay roy ah, moo tax dëkk bi bu ñu ko tegee ci ay loxo dadul Touba dëkk boo xam ne dañu naan ay carte la koy may wala nangam ak nangam moo la koy may kilifa moo la koy may mais bu fekkoon ay carte koy maye ba léegi jóge nañu ko fi defar nañ moo xam ne loo xam ne bi ñun bay bëgg a dee te fan yee rek la fi benn oto dugg ñu dañoo pousse pousse pousse bay bëgg a dee mu doog fee génn loolu mel nii ci dëkk Sëriñ Touba bii ñu mën ko fay seetaan ah day def yeneen nag yeneen yeneen yoo ne bii naka solul noonu la ñu gis lii kenn ku nekk di fi jaar xam nga ne jumaa ji ñu jàkkaar loolu lii taaru kii ñu ay nit di fi doon ay gan dafa jaar ak yàggaay bi lu lépp nekk fi xam nga ne jaaduwul eh, lu rafet itam war nañoo wax bay bëgg a dee nag mënuñu dara waaye kon ñu mën a dimbale daal te yàlla tax nga dimbale ñu ay safar lañ di daan suñu doole mais yu mel nii mënuñu cee ànd ak moom di daw di ci daanoo ko génn muy métti ci lool fii boo fi jaaree boo demee rek boo dee kilifa sax fa ndiggali day rax bala ngaa yegg sërëx sërëx lay def ba oto dem fenn dagg nañ ko dem nañ seen yoon gisatuñ leen nañu dimbale ngir yàlla ak ngir jëmmi borom dëkk bi. te oto yu bëri yàqu nañ. ak sa maam Cheikh Rafal dëkk oto yëpp yàqu nañ. oto yàqu nañ yàq nañ ndiggi taximaan yëpp yàqu nañ. jërëjëf pax yi jërëjëf. mbokk yi damay laaj rek ko xam wax ndax lii xalaat ngeen ne boulevard de la république benn xeer wala benn kamb xalaat nañ ko fa bàyyi ci benn minute mbokk yi xalaat leen ndax lii jàpp ngeen ne buntu palais de la république. xalaat nañ faa teg benn xeer ba fay gasi kamb di ko fa bàyyi benn minute waxuma la lu ëpp ñetti weer mbokk yi ndax xalaat ngeen ne lii am nañu xalaatu def ko buntu assemblée nationale ndax jàpp ngeen ne lii am nañu xalaat ko def ko buntu ministère de l'intérieur wala sax ndax jàpp ngeen ne lii mbokk yi xalaat ngeen ne yoonu Mermoz kàmb gu mel nii mën nañu ko faa def di ko fa bàyyi benn minute waxuma la ñetti weer waaw yéen jàpp ngeen ne sun barab bii di barabu umma islamique bi yëpp danañ ko tëkkale ak barab yii ma leen wax mbokk ndax jekk na ndax jaadu na ci wàllu insécurité ak ci wàllu sembol diggante kër sëriñ Touba ak jumaay Serigne Bamba ji ñu gas fi donte liggéey bi ñuy def lu am solo la ndax yoon wuñ jaarale ndox yu bon yi la ñu gas tali bi dagg ko. dugal seen i tuyau dem seen weyoon te boo sàgganee nag màggal ak programme mu màggal lañu koy jëmale seen yoon nekkul ci usager yi seen yoon newul ci kilifa yi fiy jaar seen yoon newul ci barab bi ak cellange mbokki ndax jàpp ngeen ni lii kenn xalaat na ko def biir ndakaaru ku xam wax ma waaw ana ñi nga xam ne ñoom lañu dënk dëkk bi ñu war koo taxaw ñoom lan mooy seen responsabilité ci lu mel nii nan lañ mënee nekk ci dëkk bi ñu dénk leen ko ñu toog ñetti weer kàmb gu mel nii nekk ci barab bi gën a sell ci ñun ci àddina bi ñu bàyyi ko fi kenn yeeyu ci yàbbi jël ay xeer nii wërale ko muy loo xam ne kenn xamul lu muy nuróol ci bunt jumaa ci digganteem ak kër sëñ Tuubaa ji mais lu xew wala boog ñoom dañoo nekkatul ci dëkk bi wala dañoo dëkkul ci dëkk bi wala lii daf leen a ñorul mbokk yi